ndax bi ñu génnee léegi di leen wax ci tamatu umra la booy xaajale ak aj ndax dangay jiital umra lii nag da nga koy lënkale maanaam buñ koy wax ci xeetu beneen kàllaama mooy wax ne non jonction maanaam yéene boo ci def moo tax ñu koy faral di conseiller mag ñi ndax bu boobaa benn xeer la booy jam ñaar ndax boo sànnee rek da ngay am aj am umra léegi nan la ñuy defee xiraan kii def xiiraan mooy ki nga xam ne fas yéene na ñëw ginnaaw bi mu waxee li ma wax léegi nga xam ne mooy allahuma labbayka hajjan wa humrata man yàlla fas yéene naa ñëw wuy si la ci ak gi nga xam ne dama ko lënkale ak umra kon mbokk yi waxoon nañ leen ifraat nan lay def waxoon leen tamatu nan lay def xiiraan day niru lu jafe ba ñu bëgg ko sax féetale aju mag ñi waaye nag dafa bokk ci option yoo xam ne muy mag muy ndaw li nga xam ne moom la xaw a niroo ak ifraat boo xasee ba yéene doo ko séparer dara doo denc sa armal ba keroog ngay sànni sa jamratu ba kon circuit boobu rek moom lay jël bu jógee Madina ñëw dëkk ci hôtelam Makkatal Mukarrama moom na xam ne juróom-ñetteelu fan day dem Mina bu fa demee moom ka nga xam ne moom àndoon na ak moom ci biir groupam moo sala dafa tànn tamatu wala la mu tànn ifraat moom mi tànn xiraan ifraat la gën a nirool parce que ifraat boobu ba léegi ba ci juróom-ñetteelu fan ba bi nga xamee ne waa tamatu ñoom ñoo ngi solaat seen armal moom muy def xiraan kon mbokk yi ñoo ngi ba léegi ci xiraan muy aj goo xam ne euh, ginnaaw niñ ko waxee léegi da nga koy lënkale ak umra moom loo ci def rek day jël aj ak umra kon ni nga xam ne noonu lañ ko waxee ci ñi nga xam ne ñoom nooy doon def ifraat di ko defee tamatu xiraan moom ginnaaw wuyu si nga def aj goo xam ne da ko linkale ak umra kon circuit bi rek ngay jël moom génnul ci armaram ginnaaw bi mu jugee biir aali ca yéeneem tàmbalee ko ci la baykaam ba ni mu ñëwee Makka nekk ci hôtelam wala mu nekk ci résidence yi nga xam ne moom foofu la ko ñi ko yóbbu dalal bu fa jógee rek dem na Mina jóge fa dem Harafa jël circuit bi ak ñi mu àndal juge xarafa moom li nga xam ne moom lay yàlla def moom moom mu xaw ko niroo ak ifraat moom bi mu ñëwee def tawaaf xuddoom bi mu defee safaak marwaam safaak marwaam boobu day jël safaak marwa ajam ci ginnaaw yéene bi nga xam ne yéene na ko donc comme moom bu fekkee ne yàlla dogal na jóge na xarafa ba sànni jamratu aqabam boobu dem def tawaafu ifaadaam moom du def taf du def du def safaak kon loolu mooy li nga xam ne moom la xaw a niroo lekk ki nga xam ne moom mooy def li nga xam ne mooy aj gi nga xam ne mooy aju ifrat ñëw rek fas yéene def aj rek moom ñooy bokk seen euh, tolluwaay seen nekkin ci wàllu nekk ci seen armal ba keroog nag nga xam ne ki defoon ifrat du def ak marwa ndax safa ak marwa bu njëkk tawaaf xuddoom la def mu def tawaafu nuyoom waaye safa ak marwa ba nga xam ne moom la def safa safa ak marwa boo xam ne day jël safa marwa ajam ki nga xam ne day def xiraan nag moom yàlla dogal na nag bu ñëwee lépp lu mu def muy tawaaf ifaadaam day jël tawaaf ifaadaam umra ak aj bu dee dafa def safa maro bu dee safa maro du ko def parce que defoon na ko bu njëkk jël na aj ak umraam kon ci tënk kii def xiraan moom bu dellu see ginnaaw tawaafu ifaada tawaafu farataam du def safa du daw safa ak parce que safa ak ba mu njëkk a def mooy dugg ci safa maro bi nga xam ne moom moo dugg ci aj ak umraam waaye nag dafa am luy gàllu ci loosam nag loolu di gàllu ci loosam moom la ñuy wax haddiyu du tabaski maanaam day am gàtt boo xam ne gàtt bi dañ ne moom bu dee xaar la warta yées juróom benn weer bu dee bëy la warta yées benn at bu dee nag la warta yées ñaari at bu dee gëléem la warta yées juróomi at bu ko ëppee nag loolu li nga xam ne moom la ci charia jàngale mooy warta yées lii nga xam ne moom laa énuméré léegi bu dee xar la warta yées juróom benn weer bu dee bëy la warta yées benn at bu dee nag la warta yées ñeenti at ñett ñaari at bu dee giléem la warta yées juróomi at lii nag boo gisee ñu ciy dugal giléem ak nag am na ñoo xam ne dañuy daj ñu dem wuti seen giléem ñu rey ko kon loolu dafay dugg ci seen xaddu yu kon mën a bëgg a leeral nag mooy bokk xaddu yu am na ci kaw mu doon loo xam ne diggante nag ba giléem la ndax bu dee masala ni nga xam ne ci at yi ñu génn li ko tàmbalee trois cent cinquante quatre cent ba quatre cent rial dina ko jar ci ni nga xam noonu la Arabie Saoudite organisé wu ci banque islamique ak banque yi nga xam ne ñoom dañuy dox ci wax boo fa demee di nga am ticket boo xam ne moo lay may nga def sa hadiyu bu ko defee bu bisu tabaski bi jotee ñoom ñooy organisé wu ñu rayal la ko kon nag loolu mooy ki nga xam ne moom mooy def xiraan moom aj la yéene boo xam ne dafa lënkale aj ak umra comme ni ñu waxe léegi ci yéeneem ngir fàttali ko mooy allahuma labbayka hajjan wa humrata kooku mooy ki nga xam ne moo ñëwoon yéene def aj gu mu lënkale ak umra mbokk yi loolu moom lañ leen indiloon doon ko tëjee ci nga xam ne te doon naa fàttali léegi sëñ Mourtada di ko wax ne ko nit warta tànn benn dem ba ci biir gis baay Ibrahima bay tànn benn mu jàpp ne moom daa war a def booba bi nga xas ba tànn ba ni nga jógee Arafa dem def sa jam dem def jànni sànni sa jam la def tawaafu ifaada loolu mooy li nga xam ne yow waroo cay génn moo xam da nga tànn ifraat moo xam da nga tànn tamatu moo xam da nga tànn xiraan kon mbokk yi loolu lañ leen indi leen seen juróomeeli numéro mu nekkoon catégorie yi nga xam ne kenn ku ci nekk ci ni nga xam ne noonu la Tawfekh Production bëgg ànd a yéen gunge leen ci waxtu yu ñu toll ci weeru sawal ngir lépp loo leen xool ci biir Tawfekh Production mu mën a bokk ci li nga xam ne da leen di yombalal seen dem fa nga xam ne mooy euh, aj gi nga xam ne ci la suñu borom mën ne gan doon leen euh, leeralal li nga xam ne moo ci aju ba di xaar yeneen numéro yi nga xam ne lépp loo xam tamit jëm na ci ginnaaw aj gi ban taxawaay la ci nit war a am am loo xam ne moom lañ ciy sof ci kiy def xiraan boole ko kiy def tamatu bu dee moom reyul gàtt ci maanaam ay jafe-jafe moom daf fay woor ñetti fan ci ayama tashriq yi bis yi nga xam ne ci lay noppalu di jaamu yàlla mun na fa war ñetti fan bu ñëwee ci dëkkam mu war juróom-ñaari fan kooku boo ko xoolee loolu tamit dafay dugg ci haddiyu